mbokk yi kon incha allah ñu ngi war a jël tey suñu aaye bu jëkk ci suuratu Saad ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñuy wërsëgalaat ñu daje tey ji ci biir néegu borom bi ci biir shahru ramadan muy fukkee leelu fan ak benn ñu war a jël téere borom bi jalla wa ala ñu ngi koy ñaan mu jagleel ñu mook mboolem ñi nga xam ne ñoo koy déglu ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ak ñi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom di waa sa diine yi ak suñu télévision bii di Islam TV ñun ñëpp yal nañu yàlla boole ngërëmam ci defal ñu aafiya fi dunya wal axira kon tey jii it ngëneel yooyu ñu doon wax yépp dolli na ca beneen ngëneel ca mooy ngëneelub euh, ngëneelub bisub aljuma waaye ngëneelu itamit waxtu barkeel bi di gannaaw takk sonu aljuma xam ne lu bari ci borom xam-xam yi ca lañuy yaakaar waxtu bi yàlla nangu ay ñaan ba jant bi di so loole di ngëneel ci biir ngëneel di leer ci biir leer mboolem lu ca yàlla wàcceel njëriñ ñeel julit ñi yal na yàlla boole ñu ca mboole mi lor yum cay teggi yal na yàlla boole ci suñuy lor kon incha bu Cheikh Ousmane pare jëral ñu bind bu njëkk

بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صاد يلا مو خملوم تجبلو والقرآن ذي ذكر سن برام ميغي القرآن برام فاتلغي بل الذين كفروا في عزة وشقاق يفري دي نغتي أغري أكوك جويو كم أهلكنا من قبلهم من قرن ما نياتل ألك جيتولين كي أي ماس فنادوا نيوم نيب نيو سن بروم ولا تحين مناص أي ليس الحين حين الفرار ما يدون وقت وقت ودي نكل وقت دو دي مجح. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم نون لن يمو تمنين دي ديكال aji waaraate ju bokk ca ñoom wa qaala alkaafiruun yéeféer yi ca lañu doon wax ni haza sahirun kazzab ki du dara lu dul njabar kat fen kat kesse ajaala al alihata ilaha wahida amul ndax day def yàlla yi yépp mu nek ben yàlla kesse in haza la shay'un ujab loolu day li mbir mi day nek na mbir bu yeme وانطلق الملا منهم نون لا ديمنا تابليه تي نيوم ان يمشوا واصبروا على الهتكم دخلين تي نين مون سين يالا يي ان هذا لشيء يراد لي دي دو دارل دول مير مونيو بغ ريك دي ساكو اي ساكو غريفتيف تي سونو كاو ما سمعنا بهذا في المله الاخره نون لي ديغنوكو ساخ تي ديني يي مجيجي ميغي نونو ان هذا الا اختلاق lii du dara lu dul ay sos kese a unzila alayhi zikru min baynina ndax moom dañoo wàcce ci moom fàttali gi ci suñu diggan ci suñu biir bal hum fi shakkin min zikri suñu borom mu ni ñoom de dañoo nekk sikk sàkk ci sama fàttali bal lamma yazuqu azab waaye la ko waral rek dañoo mosagul mbugal bi mi ngi noonu mbokk li mooy suratu Saad di sori ak saar bi ñu génni di soofaat yépp ca makka la wàcc saaru makka yi day defar fondement diine doomu aadama te mooy defar pas doomu aadama bi sa pas-pas num mel noonu la say jëf di mel bu dëgëree jëf yu baax jub bu woyee jëf yu yàqu suñu borom ubbee ko sood yàgg nañ cee wax ci bi ñuy wax la ko jiitu woon ala kulli xaal bokk na la ci gën a digg doomu lu borom xam-xam yi wax suñu boroom dafay indi xaraf yi nga xam ne arab yi miinoon nañ ko rek ne comme da ngeen weddi ne alxuraan muhammad moo ko defar xaraf yaa ngi ni jël leen saad alif lam mim taha nun yasin ila axiri ngeen defar alxuraan bu mel ne bi mu defar mi ngi noonu donte ne it alxuraan dafay waxee wax boo xam ne arab yi miinuñu ko woon te ji arab booy toogal bu ñu nga ne sood fokk dana la dégluwaa ki li muy wax lu mu doon loolu it kon xarf la buy woo nit ñi indi seeni xel suñu borom yàlla lan la wax mu ne mi ngi wàcc alquran borom zikri bi mbokk alquran fa lillahi alhamdu moo nekkoon euh, téema suñu xutba tey alquran suñu borom mu ne mooy borom zikr na am la ca jiitu mooy nañu fàttali kan mooy suñu boroom kan mooy suñu boroom looloo tax fa gën fañ koy taree mooy ci julli aqimi salaata li yi waaye de danañu fàttali suñu ndigali borom di zikr waa ji dem ca marché ba moo koy fàttali ah bul dugg ci riba bi de bul dugg ci najshi bii de mi ngi noonu bul dugg ci lekk lu jaaduwul kee nekk ca kër ga mu fàttali ko wa bil walidayni ihsaana kii nekk ci dëkkandoo yi ak koy mën a jëflanteel alquran moo lay won ni nii nga war a def moom waaye suñu borom it def ko zikr zikri mooy lan mooy ku ko jëfee yàlla yëkkati aw turam innahu la zikrun laka qawmik loolu mi ngi noonu yonent bi alayhi salaam mu ne inna allaha la yarfa'u bi hadha alkitaabi aqwaman wa yada'u bihi axarin téere bii de yàlla dana ci yëkkati ay nit dana ci toroxal ñeneen bokk julit suñu mag ñu baax ñi ñuy tudd fii suñu sëriñ si fi nekkoon dañ fee nekk wala ak i buur nekk feek ay boromi alal nekk feek ay mbëri làmb waaye maadaama dañoo féete woo woon di jàngal xolaan di ko jàngale gis ngeen ñoom la yàlla bàyyi seen tur seen gannaaw lool it ki bëgg dundam tedd ba ëllëg ñu koy fàttaliku fàttaliku bu rafet fokk day bokk ci ñiy gëm alquran di jëfe alquran muy ak zikr borom boobu nag nee na teewul xéewal gi yépp ñi nga xam ne yéeféer yi ñi ngi ci ak rëy akuk juyoo ca mbokk la nga xam ne mooy gën a màgg ci liy tee doomu aadama bi texe muy rëy rëy googee moo taxoon ba waa Makka ni duñu topp Muhammad abadan mi ngi noonu duñu topp ay ndigalam di bàyyi suñu diine maam moom la yonent bi alayhi salaam doon wax ni ku am ci xolam lu toll ni misqaala zarra ci rëy du dugg aljanna mi ngi noonu mu ne nag rëy mooy batarul xaq wa xamtu naas rëy mooy nga bañ dëgg comme waa Makka ak izza gañ nekkoon tax nañu bañ dëgg gannaaw ba ak juyoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye borom bi mu ne ñaata la alak jiitu leen ci ay maas keroog ba leen yàlla di alak ñoom ñëpp ña nga doon wooy yàlla ca loolee nekkul woon waxtu daw waxtu mujj mucc ña ca jiitu woon mooy xawmu nuux ña ca mujj mooy firawna ak i notable firawna keroog ba muy lab mu ngi woo yàlla ay yàlla kenn yeyewul ñu koy jaamu ku dul yàlla bi bani israel di jaamu dama tooñoon jébbalu naa suñu borom mu ne déedéet du waxtu wi nga ko war a waxe mi ngeen noonu du waxtu wi nga ko war a waxe borom bi nag nee na ñoom day ñu ngi yéemu ci yàlla yónnee leen ku leen di xupp ndax ñoom jàpp nañ ni li ñu nekkee ngërëmal yàlla rek a ca nekk yéeféer yi ne lii day mbir mu gënu koo yéemu ñun ñu am ñetti téeméeri yàlla ak nangam ba pare muhammad moom ñëw ni yàlla yépp nañ leen bàyyi yem ci yàlla mu màgg mi kese ca mbokk yi fir yi dañu amoon yàlla yoo xam ni ñooy régle problème mu taw yée ñooy régler tukki yée ñooy régler guerre yée ñooy régler wërsëg yee ñooy régler kaza wa kaza mu ne nag mu Muhammad neen nañ bàyyi yàlla yëpp yépp yëpp ca yem ci yàlla mu mag mi kasi lii day dara gënu koo yéeme lii daal kii lañ ko bàyyi du dara lu dul ak njabar ak fenkat wax naa la lañ jublu woon ci njabar ga mooy ñenn ñi ko topp mu ne dara toppewuñ ko lu dul dalee na njabar kese allahuma lu dul yow it julit xame ci ni te njabar day lu am la ca lu yàggalu ci kaw suuf te it doomu aadama mën naa jabar doomu adama ba mu topp ko da doon góor gu njabar jigéen ba mu topp ko wala ku njabar mbooloo ba mbooloo ma topp la loolee ñu bàyyi ci xel yu baax loolu tax ndawi jullit yi ñu ngi leen di moytuloo daje yu bari ñuy gis kafe ya jolli tëgg baag nangam ak nangam ngalawaay bu fa dem bu fa dem ndax lu bari da ngay gis ne du ne ay caaxaan yi dañ koy feeñal rek waaye ci biir it am na lu gën a garaaw mooy dañuy njabar ñu bàyyi xel loolu bu baax borom bi subhanahu wa taala ni ca la notable yi jógee ne hey dem leen kii bu leen ko déglu am siw jóg leen bu leen ko kenn déglu muñu leen ci seen yàlla yi mi ngi noonu xam ne bu ngeen ko bàyyi di al alku kii bëggul lu réy réy lu suñu kaw rek mi ngi noonu bëggul lu réy réy lu suñu kaw te mel noonu jiiñ nañ ko Musa ak eh, Haruna an yakuna lakum al kibriya fi l ard jiiñ nañ ko eh, yonent yàlla Saalih dara taxul muy wax lu dul rëy rëy lu suñ kaw rek pourquoi mooy moom mu nekk njiit lu ko neex rek lay lay wax ñu topp ko te mbokk lii it day nekk réaction lu bari ci ay intellectuel boo gisee nanguwuñu dund diine ñoom dañoo jàpp ne diine day limité doomu aadama te mooy gëmal lii defal lii defal lii non doomu aadama dafa war a jëfandikoo xelam la xel mi may mu jëfee ko la xel mi mayul mu bàyyi ko waaye mbokk déedéet diine mooy soumission mooy jébbalul yàlla ci li nga xam ak li nga xamul li nga comprendre ak li nga comprendreul loolee mbokk mi ngi noonu waa Makka dolli ci ne waaw man waxumaa dara sax mu ne yàlla buñ ko boole kenn lenn waaw lii diine yi fi jiitoon sax waxuñu ko diine yahut a nga ne ñoom dañ naan seen diine asamaan la jóge allaaxira am na waaye ñoom sax nee nañ Uzayru doomu yàlla la bokk nasaraan yaa nga ne nee nañ euh, Isa doomu yàlla la di jaamu Uzayru ak yàlla nasaraan yaa ngay jaamu Isa ak yàlla mi ngi noonu te nasaraan yi mi ngi noonu mooy la trinité mooy le Père le Fils et le Saint-Esprit mi ngi noonu loole moom nag muhammad moom mu ñëw mu ne déedéet laa ilaha illa allah yàlla kese kese kese lii daal du dara lu dul ay sos yoo xam ne sos na ko kese waxuma dara moom bis bu xëyee rek nañu yàlla ne <laughs> yàlla nee na mi ngi noonu bis bu xëyee nañu yàlla nee na nan la yàlla di waxee moom même mu ngi suñ biir yéegal ko asamaan gis ñu yàlla am malaaka mu wàcc bis bu xëyee nan yàlla nee na gis ngeen te loolu it mbokk mooy li yonent yi bari tontu seen xeet allahuma ñun ñi nga xam ne ñoo tombe tey ak technologie suñu boroom xelal na doomu aadama moom benn xott boo xamee ne nii yow mën ngaa taxaw fii naan Modou ca New York mu ne naam Modou ca Washington ca fële Moscou mu ne waaw nga woo ci Tokyo waaw ci benn place ca ki toog fee ci rue de Jacques bi du dégg li ngay wax Modou ma nekk ca Moscou moom di xam li ngay wax li ñun ñoo ko fekkee waay loolu doomu aadama ko defar lool it mbokk suñu borom jalla wa moo ñuy wax mbir yi ca ngir mu indi lay ci kaw jaam yi néewoon na danaa leen woon samay kawtéef fi l afaq wa fi anfusihim xatta yatabayyana lahum annahu lxaq dinaa leen woon samay kawtéef ci gox yi ak seen bakkan tey jii su ma jëloon sama téléphone di téléphoné euh, même bu doon ki ci buntu jàkk jëlee téléphone wax ji il faut mu dem ci satellite bi ci kaw asamaan bi dana jaar ci réseau Sonatel wala Expresso wala dem ci satellite le 221 ba nekk ca kaw asamaan ba doog a wàccaat ci moom ci fraction de seconde loolee kon yéefari di doon wax naan nan la suñu borom nekk ci asamaan yi muy wax ak moom lii mbokk ñoom pour ñoom ñu ne déedéet loolu du dara lu dul ay fen kese borom bi nag ni ñoom de ñu ngi sikk sàkk ci sàkk fàttali waaye la ko waral muy mbugal mi ñëwagul waaye mbokk amul kenn kuy teewe mbugalu yàlla lu dul ne gëm na loolee na doon mbugal bi yàlla y wàcce muy mbugalu maas bi yépp comme ni mu daloon xer jëkk ya wala mbugalu sukuraat amul benn yéefér bi sukuraat ba malaaka yi tiim ko bol day dal يضربون وجوههم وأدبارهم لذل دنا يعني يلا الله ربي ارجعون ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك أي يلا ما يمم دندات غريما دفلو باخ سنجم رموني آه، لو ليت حين حين مناس آه، لغا خاني مي موتشواي امول تاي ميغي نونو شيخ عثمان أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها ما لها من وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب بارك الله فيكم سنبرم مني أم عندهم خزائن رحمة ربك أم دانك nekk ليد منغزي يرماني di العزيز الوهاب ki not lépp ci kartanam aji may ku ko neex aji sax di maye ji am lahum mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma wala bok di leen ñeel ngoruk asman ak suuf ak la nek ci diggante ba fal yartaqu fil asbab kon kay nañ yek ci yoni asamaan ya jundum ma hunalika mahzum min al ahzab armi yi nga xamne mo nek fi day ñu ñi dakk lañu armée yooyu bokk ca ahzab ya ay jundun ma hunalika min al ahzab mahzum kazzabat qablahum qawmu nuux weddi woon na leen ñi di waa nuux wa aad wa firawn zul awtaat ak firawna ma nga xam ni moo yoroon piye awtaat am nañu ko firi mooy ñam daan dind di leen daaj ci ay croix avant mu leen di rey amna ñuko firé aw taad moy borom armée bu dëgër ba nga xam aduna kenn mënu ko wona a dékku wa samud wa samuudu wa qawmu luut wa ashaabul ayka ñooñu ñëpp ulaika al ahzab ñi dañuy kurel yi nga xamne jaar nañ fi in kullun illa kazzaba rusula amul kenn ci ñom dul weddi na yonent yi mboole seen fa haqq iqab mu yey ci mom la nga xam ne mbugulum yàlla amma wa makka nag wa ma yanzuru haula'i خارل ني إلا صيحة واحدة لدل بن يوخ بن رك ما لها من فواق دوكو نيل بن دغ دغ فواق موي كي رتخر بو قتشي باي قتشي باي ديغنت نياري قتشي لي نيتو فواق وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قطنا قبل يوم الحساب ني اي الله غاوي نيو تير تي لي محمد دي واخ avant bis fenci di taxaw mi ngi nonu mbokk suñu boroom mu ni yéeféer yi nga xam ni ñoom ñooy wax ni kii nekkulul as nguur suy réy réylu bu doon te ne sax lawla unzila hadha alquran ala rajulayn min alqaryatayn azim bu doon te ne dañ ni walid ibnu mughira ca makka moo woote abdullah ibnu masud as saqafi ca taif moo woote kon sax buñ ko toppee du garaaw waaye nguur si juddi fi barki de boo njaay ñëw ne nag ñun ñépp nañ topp ci gannaawam borom bi ne waaw ndax ñoom ñoo yor sa magasin yi boroom bi nga xam ne mooy not lépp di xool ku ko neex di ko may lu ko neex ñoom ñooy tànn am yàlla mooy tànn déedéet mbokk jullit yàlla mooy tànn te it xam leen ne mbokk suñu boroom moo yor xasaa inu lu mën a doon yow mi bëgg wërsëg yow mi bëgg doom yow mi bëgg alal nuñ ko lu mu mën a doon ci teddaange lu mu mën a doon lépp wa in min cheyin illa indana xazainuhu lu mu mën a doon yàllaa ko yor su ko defee bokk na ci erreur bu garaaw a garaaw doomu aadama nga am benn looy yaakaar di ko yaakaar ci keneen ku dul yàlla jalla wa yàlla moom mooy may mooy alwahaab nga noonu tax yonent yi yëpp ñaan nañ ko ay doom ba lañ cey teg innaka antal wahhab rabbi rabbi jël ni min ladunka zurriyatan tayyiba innaka antal wahhab yow yaay kii may te al wahhab mooy kum bëgg a may dara mënul te mu may ko ko masalan yonent yàlla zakariya bi muy ñaan yàlla doom nee na màgget naa sama yeex yi fënëx na sama bopp baa ngi weex tàll sama jabar stérile la mooy dafa jërmeel léegi waaye yàlla may ma doom waaye al wahhab bu ñu da ko may doom amul benn situation booy toll alwahab bëgg la fa xettili lu dul dara mënu ko teemu def ko mu ngi noonu innaka antal wahab borom boobu nag subhanahu wa taala ndax ñoo moom ngóorug asamaan ak suuf bay tànn kan la yàlla di yónni ak ko yàlla dul yónni waaw nañu yéeg kon ci kaw asamaan yi te loolu laa chaque ne moom mënuñu ko borom bi nag ne yonent bi alayhi salaam muñal gis nga kuréel yii sonal la bis dana ñëw ñu dàq leen sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur comme na ko yàlla waxe ci suratul qamar te it noonu la ko yàlla waxe woon noonu la ko defee yonent bi alayhi salaam yàggam Makka treize la suñu borom génne ko yóbbu yóbbu ko euh, Madina gurgur waa Makka dajeeg ñoom ca Badr dàq leen rey leen moo tax keroog ba waa Badr di daw yonent baa ngi leen di topp ak jaasim ñu sahaaba di jàng aaya ba suñu borom di wax jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab armée dañ leen dàq wax naan sa yuhzamul jam wa yuwalluna dubur ñoom ñëpp ñu daw mi ngi noonu fekk nekkoon nañ junni nit junni nit jàkkaarloog ñetti téeméer ñu daq leen ñu daw yeneen ti bare ca soixante dix yeew ca soixante dix yóbbu Madina mu ne buñ la jaaxal ñeneen fi jiitoon mooy waa Nuux qawmu Nuux Aad Samud Firawna xawma luut ashabul ayka mooy fa ñu indi woon Shuayb mu ne kuréel yii yépp dañoo yoroon nguur ci kaw suuf yoroon baat ci kaw suuf weddi diine yàlla bi suñu boroom yàlla mbugal leen léegi nag li des mooy képp ku la weddi bi ila yawmi diin na doon waa Makka la ak ñeneen lim leen di xaar moom mooy yuux goo xam ne amul fi muy dagge te it mbokk bu demee ba bu bis penc li war a taxaw loolu mooy alkaange gi yàlla di mujjee alak wa suuf gannaaw yeneen ci yàlla Moussa yàlla di indi alkaange gu muy maasalee ci yéeféer yooyu foofu waaye gis nañ ci yàlla day sant Israfil mu ëf su ëffee da ngay gis ne lépp lu nekkoon ci kaw asamaan ak lu nekkoon ci kaw suuf lépp day dee mi ngi noonu ëf ga du am benn dagg-dagg léegi nekk yeneen ci bi alayhi salaatu wa salaam fa mbokk yenentim ya jaaroon te yaa ngi dégg suñu borom ni illa kazzaba rusul xeet yi fi jaaroon yépp weddi nañ mboolem yonent te la ëpp ci xeet yooyu benn yonent lañ am waaye mbokk yonent yi benn mission lañu am ki weddi kenn moo ki weddi ñëpp a yem da nga doon ki weddi kenn moo ki weddi ñëpp yem donte ne liste la bu yàlla tëral ku ca dolli kenn weddi nga ñëpp loolu ñu bàyyi ci xel bu baax lolu ñu ne hey muhammad allah allah alaxira allah alaxira da sori léegi yow jox ñu jox ñu suñu wàll ci mbugal mi ngay wax avant yawmul hisab di xew mi nga noonu lolu bokku na luñ daan saboote yoonenti yàlla yi ca mbokk kon yawmul hisab mi ngi nonu euh inshallah ñu bay cheikh ousman إنه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكملنيها وعزني barakallahu fikum suñu borom mu ne ab yonentam isbir ala ma yaqulun muñal ci li ñuy wax wazkur abdana daawuda zal aydi ca nga fàttali ko sunu jàmba daawuda borom loxo ya ay borom kattan ga ci jaamu yàlla innahu awwaab moom day ku daan sax di dellu ci boromam la inna sakharna al-jibala ma'ah ñun ñoo taggotoon montagne mu ànd ak moom yusabbihna bil ashiyi wal ishraq ñuy nekk di sabbal ca ngoon ya ak ca fenk waayu jant ba wa tayra mahshura tàggat picc yi nga xam ne dajale nañ leen kullun lahu awwaab lépp nekkoon ne di dellu di ànd ak daawuda mi ngi noonu wa shaddadna mulka ñu dëgëral lii di nguuram ga wa aataynaahu alxikmata wa fasla alxitaab may ko la nga xame ni moom mooy ak xereñe may ko muy téqale ay wax wa hal ataaka naba alxasm ma ndax dikkal na leen xabaaru dagg ba is tasawwarul ah, ah, mihraab ña doon dagg sante bañ demee ba yéeg daa la nga xam ne nii mooy mihraab ba mooy place ba daawuda doon laqoo ca jàkka ja di fa jaamu yàlla is daxalu ala daawud ba ñuy dugg ca daawud fa fazia minhum mu tiit ci ñoom qaalu la taxaf ñu ne ko daawud bul tiit bu ragal xasmaani baga baaduna ala baad ñaari dàgga seentekante ñaari dàgga ci ñun daa bew ci li ci des faxkum baynana bil xaq àtteel suñ diggante ci ma wala tushtit waaye bul jàng de wahdina ila sawa sirat jubal ñu ca la gën a jub ci aw yoon inna hadha akhi mu ne ko kii sama frère la lahu tis'un wa tis'una na'ja ñel na ko juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay xar yu jigéen waliye na ajatun wahida man óoma lu dul benn xar bu jigéen fa qaala akfilniha mu ne ma nang ma jox sa xar bi jox ma ko ma féetewoo ko wa azzani fi lxitaab ba pare nag taral ci man lool ci wax ji ne fokk rek danaa ko ko jox mi ngi noonu mbokk suñu boroom yéefér yaa ngi ñëw di sabote yonenti yàlla bi muhammad léegi bu ñu la gëmul mbugal day ñëw ci ñun la léegi ana mbugal bi indi mbugal bi avant yowmul xisaab suñu borom na ko muñal te nga fàttali ko suñu jàmba daawuda daawuda ba nga xam ni nekkoon na borom kattan ci jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi nee na ci dàqoon na jaamu yàlla ci nit ñi mooy daawuda alayhi dàq jaamu yàlla nag firiwul gëna a sell jaamu yàlla yonent yeneen yi yi ñu boole ci ulul azm ñoom ñoo gën a sell jaamu yàlla looloo tax ñoom ñoo tiim daawuda alayhi salaatu wassalaam moo tax daawuda bokkul sax ci ulul azmi min rusul waaye nag bu dee jimmi effort jaamu yàlla amul ku ko ca d'abord yonent bi alei salam dana wax naan naafili bi gën mooy naafila yonent yàlla daawuda da daan nelaw genn wàllu guddi gi taxaw ceeru guddi gi di ko naafila nelawaat sixième ba ànd ak nit ñi yeewu njël te loolu mbokk lu jafe la mi nga noonu donte ne xale yi ñoo xam fraction bi nekk ci loolu ñaareel bi da daan woor tey ëllëg mu dog genn wàllu jamonom da ko doon woor muy be muy muy ñaareel ñetteel bi musul guerre ba daw mu ngi noonu keroog ba armée bi mu àndaloon armée Taalut te jàqee moo dem affronté Jaalut te xeex ak moom bare rey ko bokkoon na ci it daawul lekk lu dul lu muy liggéey mi ngi noonu ca moo nekkoon buur boo xam ne mooy atte looloo tax suñ boroom tagg ko ne ulil aydi muy borom kattan ci jaamu yàlla borom bi ne ne innahu awwaab daawul dañ di tuub di dellu ci yàlla ca mbokk loolu may melokaanu waa ju baax day yëg ne maa ngi ci yoonu yàlla maa ngi moytu teewul fu ma toll mi ngi tuub di dellu ci yàlla euh, yonent bi sallallahu alayhi wa wax nit ñi bari leen tuub ak jéggalu bés bu nekk dana tuub jéggul yàlla tuub jëm ci moom lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon dañu riwaaye téeméeri yoon bala abdullah ibnu omar nee nañ daa nañ toog ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn jataay bala ñu faa jógee daan jégg mu wax lu jógee téeméeri yoon rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabu rahim yàlla yàlla nag ma jéggal nangul ma sab tuub loolu mooy awwaab inna allaha yuhibbu tawwabin mi ngi noonu awwaabin borom bi subhanahu wa taala fàttalikul daawuda nga xam ni ñun ñoo ko tàggataloon montagne yi montagne yi ànd ak moom di sabal te sabal boobu bokkul ak li ñuy tudde écho écho wala boog li haut yi di def exactement ndax haut yi ñoom amuñu wax bu ñuy wax samay wax lañuy ñuy amplifier mais yonent yàlla daawuda montagne yi dañ doon wax li daawud di wax dañ doon sabbal comme ñi daawud di sabbali loolee mu jóge ci ñoom wa in min cheyin illa yusabbihu bi hamdi kon daawud bu daan jàng tawraat bu jàng tawraat montagne yi dañuy jàng tawraat comme daawuda picc yi ñëw picc gox bi yépp ñëw daa di tant fees del talal si ñi laaf ñoomin ànd ak moom lu daawuda jàng ñu jàng ko mi ngi noonu lu daawuda jàng ñu jàng ko loolee mbokk nekk décor boo xam ne nii yéeme na lool yonent yàlla daawuda kàttan gi ko yàlla mayoon ci jaamu yàlla may ko ko ci geer noonu la ko mayee woon ci baat bu neex ca suñu yonent alayhi salaam nee na yàlla mayoon na ko juróom-ñaar fukki baat juróom-ñaar fukk boo xamee ni nii bum ci yëkkati ba mu neex ko mu bàyyi yëkkati beneen baat yaa ngi dégg loole da ngay gis ne yenn jàngkat yi dañ koy def alxuseeri ay baas ci dama noonu di changer jàngin borom boobu subhanahu wa taala nag nee na noonu kon la amee ba pare ma dëgëral ko ngóoram nga amuloon kenn ko ko contesté mboolem ñi mu jiite woon ñëpp ko déggal amul beneen buur it bu taxaw ci àdduna di ko contesté shadat naa mulkahu borom bi subhanahu wa taala dolli ci it ne may na ko xikma te mooy def na ko yonent may ko faslal xitaab فصل الخطاب نياري مير لا مودي ني موم سي بوبام يالا مايون نكو مو مانا تيخلي اي واخ ني ني مو جيك ايتيليزي اما اما بعد غناو لول بوي واخ نيباي كومبروند فصل الخطاب واي يالا مايون نكو ييت مو مانا ديبي واخي نيت ني مي اتي تا لولو موي لي غنا ام سولو تي جيج موي كو واخ nga comprendre exactement لي مبغا واخ bari na ñu bari ci ay juge wala hatta ñu yàlla natto ñu ubbe ci ci masala xam-xam nit ki da leen di poser question ñu tontu ko fekk comprendre ñu dëgg dëgg dëgg question bi nu mu demee mi ngi noonu parce que da ngeen dégg fii benn waay wax ma wax li ma ko wax mu ne di waxuma loolu mi ngi noonu ala kulli xaal fokk mu boole comprendre dëgg dëgg daawud nag loolu la ko yàlla mayoon waaye mbokk la hawla wala quwwata illa billah sa xereñe fu mu tollu tollu tollu borom xam xam yi dañ na borom arab dañ naan lu kulli jawadin kabwa fasu naru gor wu ñuy siiw ah wu ñuy ciow bis na ma sa fakk sallu am deet mi nga nonu lolit motax daawud alayhi salam suñu borom di ñu netti benn bis mi nga laqku ci place bi muy wéet moom rek di jaamu yàlla mi ngi noonu am gaa yu tëb miir bi rek ñaari gaa yi tëb miir bi rek ne cëpp ci kaw gaa yi xam ngeen na bóoru fi mu ne ñi gën a ragal ci kaw suuf mooy bóoru am déet <laughs> mi nga noonu <laughs> mooy mooy bóoru yaakaar naa ndaw ñi di liir xam nañ li ñu tuddee l'épée de Damoclès <laughs> mi noonu l'épée de Damoclès benn bóoru la woon dafa am benn waayam nag nu ko ah waaye suñ bi bóoru neex na de mu ne ko da ngaa bóor rek yaa ngi dégg waaye baax na daal di buur bi am benn réception boo xam ne defar na ko léegi ñëw am ñu mu invité xaritam boobu doon ko wax nguur neex na mu teg ko ci benn place ci taabal bi jël nag benn épée épée bu rëy bu diis takk ko buum gu ndaw mu tiim waa ji nga xam ne bu waddee rek ci loosu waa ji lay waat ci da koy rey léegi nag ñu teg lekk yeeg naat yeeg yëpp waaye suñ tam daal déglu bu xam bi xam bu xool épée bi dégg nga ba bañ pare nag mbóor dëgg dëgg dëgg sa ngeen ñi dax waaye ma daal épée bii daal boo ko yàq mu ne ko waaw ngóor a ngoog nag gis ngeen boo ko mooy ngóor buur du nelaw du nelaw guddi yaa ngi dégg xam ngeen ne yal nañu yàlla musal mais réew yi wër Sénégal yëpp foofu déggul coup mu mi ngi noonu commencé même buur yi France yi ngay dégg yëpp ñaata révolution lañ def ah ñaata buur France lañ jàpp rey leen ah kon loolu tiital Daawuda gars yi ne cëpp ci kanam rek tiit donte ne jàmbari góor mooy daawuda daawuda tiit gaa yi na ko nag daawuda bul tiit ñoo xam nga lu ñuy indi dañuy dàggasante mu ne waaw lu xew benn waa ji ne man kii def moom daa am quatre-vingt-dix-neuf xar yu jigéen mi ngeeg moom benn xar laa am nag mu ne ma xar mi fokk dinaa ko ko jox sonal ma ci wax ma ne ko nag nañ dem ci daawuda te loolu li lay jëkk a yéem mooy nit ki nan lay amee quatre vingt dix xar di xëccoo benn xar wallahi am na wallahi am na sama benn waay bu nekk fii ci jàkka ji nettali na ma benn xaritam boo xam ni joxe na onze millions ak ñaari kuy ngir jënd benn xar yaa ngi dégg bis bu ngeen dégg fi xar yi jaay vingt cinq millions ci foire bi am déet yaa ngi dégg benn xar ku mu joxe ci loolu lépp ci kuy yam joxe bu nekk bu ñu la waxoon ñaata millions lay jar ko ñu waa ji yarkatu xar la bi gisee xaru waa rek àddatul ak sago wax mu ne ko foog ay li huit dag ma jox xar bi yaa ngi dégg loolu di question bu mu posé léegi nag ñu xool lan la tontu Cheikh Ousmane قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بارك الله فيكم كن سني بروم جل وعلا مني داود دادي نكو قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي منا موم داي توغنا لا ci laaj gi mu laaj sa xar mu jigéen mi ngir boole koog ay xar yu jigéenam wa inna kasiran min alxulataa doonte ne la bari ca ña nga xam ne dañuy jaxasoo ak nit ñi ci associé ci alal la yabri ba'duhum ala ba'd dana beew lenn ci ñoom ca la ca des illa allazina amanu wa amilu salihat xana lu dul ñi nga xam dañoo gëm cay jëf-jëf yu yew ye wa qalilun ma hum donte ne ñooñu ñu néew lañu wa zanna daawud annama fatannahu daawud mom non la jorti ne ñun ñi kat dañ ko den fitnal fastaghfara rabbahu mudadi jiglu boromam jéggulu boroomam wa xarra raaki'an wa ana mudadi rot di ruko dadi delu ci boromam jalla wa ala fa ghafarna lahu zalik ñu dadi koy jigal lolu wa inna lahu indana la zulfa دونتنا داود بوب نيل نكو تي نين اك جيغي غوم ني جيغي وحسن ما اب اك جن جاري فتي دلو واي يوم القيامه يا داود اي يونت يالا داود انا جعلناك خليفه في الارض نين نيولا ديف nga nek khalifa nek ko xamni ni yamay doxal la sumay ndigal ci kaw suuf fahkum bayna nas bil haqq atil digal ci nit ñi ci deug wala tattabi'il hawa bul topp sa bànneexu bakkan fa yudillaka an sabilillah kon de loolu dana la sànq ci yoonu yàlla inna lazina yadilluuna an sabilillah ñi nga xam ne dañuy réere la nga xam ne moom mooy yoonu yàlla day lahum azabun shadid dana leen ñeel mbugal mu tar bi ma nasu yawma alxisaab ci fàtte ga ñu fàtte bis ba nga xam ne daal leen ca réglé mi ngi noonu mbokk yonent yàlla daawuda moog ñaari gaayam ci biir mihrab bi waji wax limu wax daoud ak titangem au lieu mu tontu mu xaar ba keñen ki wax rek mu daldi atte daldi na kaa ah, mum de togn na la togn na la de bu de non day togn na la de ci limi lay laaj loolu mi nga noonu donte ne ni def na heureur bu rëy foofu ba ko atte kat du atte noonu ali ibn abi talib nee na yonente bi alayhi salaam moo ma jàngal atte nee na ma bul déglu mukk bul àtte mukk ci wax waxi benn nit lu dul nga déglu ko ca des lu mu wax te loolu mbokk lu néew ci jaami yàlla yi ñoo ci mucc yàlla na yàlla booluñu ci da bari nit day ñëw rek ah diwli ma def ratatatatat nga ne ah moom day nangam nangam nangam ci déglu waa jëmi moom lan lan lan mooy version loolu mbokk dañ cee war a bàyyi xel bu baax wax ni albayina ala almuddai wal yaminu ala man ankara ki ñëw di dóoral doomu aadama bi da cee war a boole ay preuve yu leer waa jañ dóoral ko moom it dafa war a waat waat bu leer ngir génn ci ala kulli xaal daawud ne ko moom de tooñ na la tooñ na la ci lim la laaj ah gaa yi jóg dem biñ jógee dem nag euh, fekk ne daawud jiitu loolu it ne ne leen nit ñi bari day ña ñuy jaxasool dañuy bëgg a bew ci seen kaw te it mbokku bari na ci doomu aadama yàlla dink alal heure bu ñuy siqeeg ab baadoo la ña ngay jéem a xool nu ñu ko mën a noggatoo ak bari tey ay service ci Dakar nga dégg ñu naan ay wéeri wéeri ngi fayuñu leen ndax gaa yi di yàgguleen leen dégg loolu ñu ngi noonu nga ci sama benn wëllëre Euh, mi ngi tuddoon Haruna Sow yal na yàlla jéggal ko yërëm ko walaay da daan service bi mu nekkoon da caa sonnoon lool maa ngi fàttaliku dafa ma daan wax dama yàkkamte weeru koor ma ne ko lu tax mu ne ma ah comme bu añ jotee gaa yëpp dañu dem man a ooma oh, añ bu koor jëmee ñëwee na ñun ñëpp ñoo bokk yem toog nañ seen service ay weer fay ñu leen ci jamono jooju ci li ma lay wax avant 2000 mille jamono jooju seen patron bi dem wàcc ate oto 30 million di ko gaare ci bunt bi avant 2000 la woon loolu mbokk du saaga leen a waay ca yaa ngi leen yoral ay salaire fayu leen ca yow baadoolu bi foo jëm loolee kon dafa bari ay bari lu bari ci doomu aadama yi dañuy lor ña nga xamee ne nii ñoom la ñu jëf li kool ci waru liggéey borom boobu subhanahu wa taala ne xanaa lu dul ñu gëm yàlla cay jëf lu baax ci loolu ñu néew la wallahi da koy dégg sëñ Bilal yaakaar naa xam nga ci dara euh, service buy tagg di gërëm seen patron da ngay gis téeméeri service doog caa gis ñaar ñett am déet nga noonu qalilun maahum ñu néew lañu waaye nag galawaay yow mi gëm yàlla gëm bis penc jaamul yàlla ci ñu yàlla teg nga yilif leen yàllaa ko dogal xoolal ñi nga yilif du ne yaa leen ëpp doole du leen yaa leen ëpp njàng du leen yaa leen ëpp at ñoom ñëpp yàlla dajale leen yow nga yilif leen loolu da nga ci war a sant yàlla yërëm leen yàlla yërëm la irhamu man fil ard ko man fis sama féeg yaa ngi yërëm ñi nga yilif yàlla di la yërëm mi ngi noonu qalilun ma hum léegi nag daawuda gaa yi dem nañu rek mu ne eh man day def naa erreur man day def naa erreur mi ngi noonu euh, ñu ngi may fàttali kenn ci borom xam-xam yi nekk Azhar ci Égypte jàppatuma tur bi nii ñu ne li ko feebar dañu amoon ñu ñëw laaj ko benn masala ci wàllu miraas moo ubbee leen ñu séddoo alal ji ba pare gannaaw ba nag la gis ne def na erreur bu garaaw ci atte ba loolee métti ko mu feebar ba gannaaw yàlla looloo ko rek gis ngeen yonent yàlla daawud rek bi gaa yi demee rek mu ne eh man de def naa erreur nan la waa ji di waxee rek mu atte ko ci ca man dégluwuma ko ci dégluwuma ki ci des ca la jógee daa di rukkoo toroxlu ñaan yàlla yàlla subhanahu wa taala koy baal erreur booba nga xam ne nii moom la def borom bi subhanahu wa nee na daawuda foogoon ne dañ koy fitnaal mu toroxlu dellu ci yàlla suñu borom yàlla baal ko loolu donte ne ne mbokk soo delloo ci yenn téere yi tafsir te malheureusement sunu maam yi gàmm yépp téere yooyu rek lañ jot mooy dañ ne daawuda alayhi salaam daa amoon quatre-vingt-dix-neuf jabar son général d'armée un jour daaw di dem këram rek fekk jabar ji ah, def ah, awra ni daaw di gis ko rek teqali kook sago ca général bi benn jabar rek la am léegi daawuda xamul xalaat xalaat daa di woo général bi na ko daal dama bëggoon nga dem attaquer dëkk sàngam général bi na ko d'accord bi ñuy dem daawuda jël lim bu ndaw boole kook moom bañ demee rek ñu rey leen ñoom ñëpp daawuda ñëw takk jabar ci léegi nag xissa bi bi mu ñëwee ñu ne ca la daawuda nag doog a réaliser ah xar yu jigéen yi ñuy wax jabaru sama général bii ma jël la ñu ne nag daawuda ci la demee ca bàmmeelu waaja te li lay won rek ni histoire bi c'est faux et archi faux dem ca bàmmeelu waay ba sëgg fa di fa jooy di fa jooy ba suuf tooy tooy ba ba am ak njëmb njëmb <laughs> ñoom Cheikh Ndiaye koy xam mooy benn garab la bu mel ne dugub njëmb ga sax fa dem a dem màgg ba tiim ko ca la ko yàlla jéggale boo ko xel mënta nangu loolu bon ala xaal boo ko jullit yooyu bani Israël ñoo ko bind ci seen téere amul seen benn yonent te d'ailleurs sax ñoom reconnaître ñu Daawuda na yonent la juif yi pour ñoom Daawuda ak Salomon ñoom ay buur la ñu woon duñu ay yonent gis ngeen ala kulli haal même yonent yàlla yi yonent yàlla ba lañ ko waxal mu ni su ko wax ci mbooloo yonent yàlla luut waxi noppi lañ ko waxal mu ni su ko wax ci mbooloo loolu seen borom xam-xam yi ñoo ko def ngir justifier mbon gi ñu nekk woon ca mooy mbon gu ñu def la ñu naa mën a ah, yonent yàlla diwlam def moo ko gën a garaw ah? waaye suñu borom yàlla yonent yi mi ngi leen tuddee mustafaynil axyaar yàlla leen tànn se sellal leen màggal leen loo xam ne ni yow ku ko waxoon sub sëriñ nga xeex ndax da nga ko nangul yonent yàlla daawuda abadan kon borom boobu subhanahu wa taala mu ni fitnaal naa ko ci atte bi mu waroon a atte teeyul ba diglu ñu mu waroon a déglu yépp waaye teewul baal naa ko ca loolu mbokk daawuda Muusa ko ci jëkke Muusa alayhi salaam di dafa génn fekk ñaar ñuy xeex kenn ci waa bani Israil ak kenn ci waa euh, mbokki firawna yi mbokk bani Israël bi na ko hé Moussa Moussa kaay dimbili ma Moussa ñëw laajul rek kor peñ waa waa ji daanu bi mu waa ji daanu rek mu réalise na ah lii de ci seytaane la jóge yàlla baal ma yàlla baal ko am déet Moussa laajul waa ji ca waa ji dee na <laughs> léegi lu xew mi ngi noonu kor na ko dee na mu ne lii de ci seytaane la jóge tuub yàlla baal ko Daawuda it même chose atte na ca laajul ah ki nga xam ne ni mooy ki ki bi war a jëflanteel lan mooy sa version yow loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ni jéggal naa ko loolu ca it teewul nekk na ku ma jege ca loolu mbokk dañ ni daawuda gannaaw erreur boobu la gën a jege boroomam comme yonent yàlla aadama alayhi salaam gannaaw ba mu lekkee garab gi ba yàlla pini ko ba mu tuub keroog la gën a baax avant muy lekk garab bi loolu tax borom xam-xam yi dañ naan da gis jaamu yàlla boo xam ne bàkkaar moo koy tabbal aljanna gis jaamu yàlla boo xam ne tuyaaba moo koy tabbal sawara waa ji day def ak bàkkaar ak njaaloo def na njaaloo njaaloo googu topp ko heure bu ko xalaatee tuub toroxlu jooy benn waaye ngi nii rey nit rey nit noonu heure bu ci xelam ne yar mu di teqali ko sa ko tuub jooy bàkkaar boobee yëkkati ay darajaam ci yàlla ba yàlla dogal ko ci àjjana benn waay jóge fële moom tabax jàkka joxe fële ay daara jël ay mbokkam dimbali leen waaye gannaaw ba di ko fuukare woo faale woo ko te ba jooju mu def yëg ci boppam ngistalu ci yàlla tabal ko ci sa waram looloo tax suñu borom ni daawuda bi mu defee erreur bi tuub na toroxlu ba gën a jege boromam inna lahu indana la zulfa te it àllaaxira la xusna maab te ñu gën a rafet delluwaay ci yàlla ca lay bokk mi ngi noonu muy daawuda alayhi borom boobu wala ba ta ko wax ak moom ne ay daawuda maa la def xalifa ci kaw suuf nga war a ci nit ñi ci dëgg kon bul attee tu mukk ci dégluwoo ñaari version donte ne bokk na lu yàlla nattoo ci sénégal mooy am ñuy woote fii xalifatullah fi ard ci sénégal ñu ne yàlla ñetti xalifa la mas am xalifa bu jëkk ba mooy daa mooy aadama alayhi salaam ba muy yàlla di wax inna jaal na inni jaayil fil ardi xalifa ñaari lu xalifa bi mooy daawuda inna jaal naak xalifatan fil ard ñettali xalifa ba mooy moom moom mooy xalifatullahi fil ard waaye xalifatullahi fil ard boo xam ne nii sénégal sax xamuñu la yaa ngi de c'est-à-dire que bu passé dakar bi tëngëj sax xamuñu koy xalifatullahi fil ard loolee mbokk suñuy wax la gal la waaye xam leen ne loolu amul musiba yi am suñu réew mi yépp dara indiwu ko fi lu dul mbokkaale gu bëri rek ni ngi noonu daawuda def naa la xalifa nga war a nekk di teewal atte yàlla ci kaw suuf kon daawuda atteel ci diggante nit ñi mi ngi noonu ca bul topp say bànneex heure boo toppee bànneex dana la réeral ca la nga xam ne ni mooy yoonu yàlla te mbokk mbokk na li gën a jafe mooy atte yonente bi alei salaam nee na képp ku jox atte rendi nañ la rendi gu àndul ak paaka looloo tax ña xamoon démb dañ ko doon daw ni ñuy dawee gaynde li nga noonu bala ñu laa nangoo nekk attekat fu ne pression bu ne dañ ko def ci yow pour nga nangoo toog di atte boo ko xoolal ki nga xam ne mën naa taxaw benn jataay rek jël ku deful dara tëj ko kasoo jël ku defal dara condamné ko à mort te lu ko waral mooy ci atteem yal na yàlla yërëm kenn ci attekat yi fi jaaroon muy Kéba Mbaye Kéba Mbaye laa dégg benn waay di ko mi ngi noonu ci confidence autour d'un micro ñu daan def lan moo la gën a marqué sa carrière mu ne li mu ci gën a marqué gis bu ma dem pompier wàcceeg samay bagage benn jeune ñëw dogaale ma nangu bagage yéen ko ba ci oto bi ma làmb sama poste li ko jox mu téye sama loxo ne ma ndax xam nga ma mën na ko non xaw ma la mu ne ma mais ana tel day yaa ma atte woon tëj ma ñaata at ci kaso waaye maa ngi lay waatal billahi lazi la ilaha illa huwa lañ ma jiñoon dara laa ci deful dem won ma gannaaw nee na loolu bokk na lu may traumatiser ba sama yamone tey mi ngi noonu loolee kon atte dafa jafe kon atteel ca bul topp bànneex xam nga ne atte yemele sa ndey ak chinois bi yemele sa frère ak japonais bi mbokk loolu yombul de <laughs> mi nga ne laa tatabi la hawa heure boo toppee hawa yu di lekkaan sabilillah dañ la réer ci yoonu yàlla ña nga xam ne nag dañoo réere yoonu yàlla day dana leen ñeel mbugal mu tar ci fàtte gi ñu fàtte yow mal xisaab yaakaar naa su ma ko waxee bilal cam mooy yëgale tafsir bi mi nga noonu euh, yow mal xisaab dañoo amoon suñu góor gi ñuy wax fii toujours dara man jàllo dene moom su dul woon nag ne yow mal xisaab man milliardaire lay doon <laughs> mi nga noonu ndax nekkoon na ci ay temps di liggéey ci magasin bi gën a rëy ci Paris nee na directeur bi wóolu ko wóolu kees yépp moo koy dajale nee na lu ma ci neexoon def waaye mu ne damaa xalaat yoomul xisaab bu dul woon yoomul xisaab milliardaire lay doon yaa ngi dégg waaye mbokk tayit mi ngi noonu waaye gis ngeen euh, suñu borom subhanahu wa taala lii yéeféri doon wax ajjil naa xëcc naa qabla yowmal xisaab boo tiiree muulu saw jën bi yal na yàlla fay xoolal ñaari lii yi ni mu dëppoo mi ngi noonu ligne bi nga yowmul xisaab fii moom ngay gis ci sa page ndeyjoor yowmul xisaab yowmul xisaab borom boobu nag ne ñii nga xam ne dañuy taxaw naan indi mbugal bi xam la yowmul xisaab borom bi ne muñal rek wallahi bis boo xamee ñu nii ñëw nañu mbugal moo tar mi ngi leen di xaar ci fàtte gi ñu fàtte yowmul xisaab bokk yowmul xisaab yow jullit bi mooy bis bi nga xam ne daañu la taxawal bi nga majeure ba bis bi ngay dee ñu laaj la mboolim diggal yi la yàlla diggaloon nan nga ci taxawee woon laaj la mboolem tere yi la yàlla tere woon nan nga ko moytoo woon lii mbokk da ngay gis ni mooy bis boo xamee ni nii képp ku ko bàyyi xel da nga moytu sa kémtalal kattan ku mel ne Omar ibn al-Khattab nag daanu xutba di wax naan xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu dee leen xisaab seen bopp avant ñu leen di xisaab sëñ bi dee la am na benn vidéo bu xale yi di seetaan ci internet bi ñu ngi ko tudde isole toi isole toi ca moy ku nek ci ñun war ngay am heure bo xamne da ngay tok di xol sa bop wa man sama gannaaw wa man sama kanam mi bu doon tay bis tay bi lay de ma dajuk sama borom lan moy nar nek sama atté di hisab sa bop avant ñu lay hisab yal na yalla hisab ñu hisaban yasira yal na ñu yalla jéggel yërem ñu ñu defal ñu aljana muy nek suñu waccu way wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in